bokki auditeurs yi ak bokki auditrices yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di balwaq ñëpp tey balwaq ñëpp tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di amaan bekti rek teel siwaat ci seen émission immigré muy la sénégalais diaspora nekk fépp ci àddina bi wërngal kàpp góor ak jigéen mag ndaw fu fi waay mën di nekk rek ñoo ngi lay jottali sunu nuyoo tey ñaan yàlla mu fekk la ci jàmm seen émission immigré tolloog numéro cent douze deux cent douzième partie di numéro bi nga xam ne mooy numéro bi bi nga xam ne tey ci la ñuy fas yéene indi lu bare bare bare ci li nga xam ne soxal na immigré yi ak seenu tundin ci ay ponk yu yaato yaatu yoo xam ne kenn ku nekk danga nga ci mën di bàyyi xel waaye laata ñuy dem ci développer thème bi dañuy nuyu la senegal la diaspora tàmbalee ko fii ci Europe ci dëkk bii nga xam ne moom la ñuy wax Kasola nekk ci province bu Bassano del Grappa nekk entre Castelfranco de Veneto ak euh, Bassano del Grappa di nuyu mboolem Sénégal yi nekk ci tund wi. waaye di nuyu région bi waaye di nuyu waa Europe gépp nuyu waa tey waa États-Unis d'Amérique waa Amérique du Sud waa Arabie Saoudite waa pays asiatique yi waa Canada waa Union soviétique ñoo ngi nuyu ñëpp ak sunu mbokki africain yi mbokk yi ki leen nekkal ci présentation bi seen mbokkum immigré tudd Moustapha Guèye moo leen di présenté émission bi di ko booleñ teg cant waaye it di fàttale it li nga xam ne mooy programme bu sensé bi nga xam ne jël nañ ko jëme ko ci émission yi mu mel ne émission bii nag bu am importance la ndax ñi koy bàyyi xel ci àddina bi bari na ba tax na képp ku ci bëgg a participer rek mën nga tàppe double sero trente neuf trois cent soixante six onze soixante six six cent soixante onze kon numéro boobu ci ngay jaar ba mën a agsi ci ñun waaye di leen wax rek ne leen important importance bi émission bi am tax na émission yi nga xam ne fekkoon na ko fi ak yi nga xam ne ñoom lañ créendoo bari na ci yoo xam ne si dañ koo ajandi ba jëmmi jamono bokk na ci émission boobu muy wax ñuy wax ormay Touba te ba ko jiitu woon di waree fu sëy yooyu yëpp dañ koo dakkanda dakka dakkal ci jamono jiñ toll ndax situation jamono ak li nga xam ne mooy coono yi ñu toggoo ci xeeti ay voyage ay déplacement empêchement boobu nag moo tax émission yooyee ñu dakkal ko ci jamono jii ba jëmmi jamono te mu tey bi nag day soxal ay point yuñ bëgg a taxaw point yi nag bari na waaye par benn la ñuy jël di ci def émission tey thème biñ jël yaakaar naa bu ngeen ko déggee te dégloo ko xel dangeen ci mën a xellu ba xam ne lii nii wax teg nañ ko ci ay sources yu leer muy xam-xam immigré yi senegale yi nekk ci partout dans le monde am na benn jikko bu ñu comporté woo boo xam ne tax na kenn ci senegal yi ku mën a réussir ci immigré immigration bi amul benn jikko kot benn boo xam ne moom la ñu tànn jikko boobu tax na nit defi fanweeri at te mënta réaliser dara ca année soixante ya soixante onze soixante douze ba année quatre vingt ba année deux jikko boobu moo tënk Sénégal yi ba kenn mënta taxawal dara loo xam ne nekk nii loola feeñ na ci immigré bi immigration bi te loola di dox mu di ca jariñu loola kon jikko jii ñuy bëgg a tudd moom moo yàq loola jikko boobu mooy ban mooy yàkkamti te mën naa ne senegal li yëpp sax ñoo bokk jikko jooju muy ñu nekk ci réew mi ak ñi nekk ci réew ma ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci réew ma benn jikko boobu moo tënk ñépp mu yàkkamti immigration nag metti na metti goo xam ne yàgg na yàgg goo xam ne dansé na dansé goo xam ne ku ca sóobu te boole kook yàkkamti doo ca réussir mukk ak loo ca mën a def ak loo mën a gis ndax doole ji lay permettre nga nekk ci immigration bi doole ji moom day jeex ndax at yi yokk doole ji di wàññiku te day ànd ak wéradi yàkkamte googu tax nag ku sóobu ci immigration ci anam boo ci sóoboo nag muy nga lijjanti sa visa ba ñëw walla ñu lijjantil la visa paasal la nga ñëw soo dikkee la ngay njëkk a def moo xam dangay ngay jaay premièrement bi ci clandestin ngay tàmbalee say activité muy doo am benn papier su ko defee ngay dem ci dëkki njaay yi boo demee yàkkamte gi nga yàkkamti lay sabab ba du procès booy bëgg a taxawal boo xam ne si uniquement moo la tax a jóg ngir nga ñëw di souffrir ci bitim réew mooy dab dabalaat ngoro goo sumboon te antuwul dab dabalaat ngoro goo sumboon te sottiwul ngoro goo sumb sottiwul mooy lan mooy nga bëggoon jabar ci jamono jooje nga am koo tànn wax ak moom waaye mu xamal ne la man bëgguma la muy wax ju leer naññi nag bëgguma la te benn critère bu mën a indi lu dul rek bëgguma la ndax xay na daf laa xeeb wala daf laa xemmimul yow nag nga téye mbëggeel ga àpp ko ci ne bis bu ma tukkee rek danaa mën a wax ak moom te bu boobaa dana d'accord kon ñu bari bi ñuy ñëw fii bàyyi nañ fa ngoro yoo xam ne si sumb nañ ko te sottiwul bi nga agsee ba tàmbali di jaay nga tàmbali nag jàpp ne yow lépp moom yemb na ngay tàmbali di kolaabare ak ndaw soose nga xam ne moom nga seqaloon ngoro ga te dëkkurul gëmloo ko ne ko maa ngi Italie léegi wala maa ngi Europe wala maa ngi tukki moom it mu daal di soppiku lam mu bëgg ko kooka bëggu la daf laa bëggal waaye bëggula loola nag dana tax duutoo am jàmm waxtu jot yaa ngi téléphoné yaa ngi yàkkamte ci ba tey yàkkamte gi day dikkaat am dara ba mën ko koo yóbbanti tàmbuli laxas sa ngoro loolee temps bu yàgg lay jël yàkkamte googu it bëgg gaaw tax na njaay mi ngay jaay doo ko teg ci yoon doo am papier yoo jaaye te doo jaayit loo war a jaay te doo jaay foo ne fa war a jaay doo jaay loo war a jaay mooy dangay jaay li ñuy wax fals muy markub jàmbur ñu di la jàpp di la sotti ak jàpp la di la identifier ak jàpp la di la téye ak tëje ci kaso it dana ci am la nga cay gañe au ko nga daal di góorgóorlu créer projet doo ko def ca ngoro ga nga koy daal di suub rek woote jomba jaay ci diggante fotowu ak téléphoné ak jamono ja nga xam ne vidéo ngi xew ak album photo nga xam ne samedi ak dangeen di dajaloo di fotowu jamono joojee sax dañ daan enregistré ci cassette bande yi kenn ku nekk di nuyoo ñuy yónnee bis bu yàlla dogalee ñu nga am ay kayit nga bàyyi njaay ma walla nga continuer ci njaay ma commencé di wër ab liggéey liggéey boobee la nga cay am doo ko jox ab temps maa ngi liggéey di fay weer nangam rek nga commencé sumbaat beneen projet muy daal di jënd pàkk ne man kat damay daal di taxaw jënd pàkk fas yéene koo móol fas yéene koo tabax ngir yàkkamti nit ñi xam ne yaa ngeeg dara loola tax na la jot a am danga nga ko cay def ba lépp lu ni toll pour mu jëm ëllëg nga xam ne diggante pàkk beeg móol yi ak taqale geeg ba ca raase gi diggante boobu loo am def ci boole koog di leb di ci def te ngor a gaa nga fa nga boole ñaari projet yooyu nag di commencé soo demee ba nga xam ne liggéey nga duus mois nga daal di xëy abandonné sa poste liggéey yàkkamtee gisi sa bâtiment ba yàkkamtee dem te sa ngoro ga boole ko jënd ay bagages yu seer ak la nga daan jënd di ko yóbbante ak dépasse ba nga war a saxal ca sa kër ak dépasse bi ngay bàyyi fii ak location yi ak facture yi courant loola moom amal ko wërsëg bu ko mën a satisfaire moom yombul bu dee ci côté liggéey bi salaire nga mën a am te salaire bi daam limite te la nga ci wékk bari diggante bii ñu la limal lépp nag temps la jël te temps boobu bu la xasee romb loo ca deful woon doo ko defaat loolu tax na yàkkamti googu yàkkamtee wane maay kan yàkkamtee récupérer ngora gi tasoon yàkkamtee jënd kër ba tàmbali di ko tabax yooyu yëpp am na lu ko ëppoon importance muy fexe ba boo tàmbalee di liggéey nga am temps def patiente di liggéey di épargner di bañ a yàq di économiser soo demee ba mat dara nga dem Sénégal def étude bu dee ci lu mel ni wàllu élevage ngay dugg muy yar ak jur mel ni ay nag wala xar wala ay ganaar et cetera nga dem ca àll ba tàmbali investir ca loolee nga xam ne mooy wàllu élevage bañ wote genn jomb ñaaw ci sa col walla matériel bi nga xam ne moom ngay wut lu mel ni ay otoog et ak tabaxi kër ak ñibbi bu jegee te loo yor bala nga àgg mu yem ci yoon wi genn wàll gi soo àggee la ca des lekk ko ba mu jeex nga dikkaat pëti kese soo demee ba ca seen dëkk cosaan ba nga wut fa sa pàkk miir ko miir bu rëy def ca la nga ca war a def su ko defee nga xool ñaata nag nga war a jënd bu fekkee li nga yor permettre la nga mën cee jënd lu mat ñaar fukki nag wala lu ko manque walla lu këpp nga jënd ko ci nga dem wut ab sàmm boo xam ne du doon yéen ñaar képp yéenay waxaale ba juboo rek nga bàyyee ko sa alal sàmm bi daa war a wut ay kayit comme entreprise bi ngay liggéey fii boo amuti kayit doo ci liggéey kayit yooyu ci lañ koy identifier su ko defee nga signeel ko contrat wutal ko salaire boo koy war a fay ngeen dem police ak gendarmerie su ngeen demee ngeen tënk fa seenub contrat ñu jël say données jël ay données li nga warloog moom ci salaire lépp day nekk ci biir contrat la bu weer dee nga yëkkati ko fay ko loolooy tax sa alal boo ca amee lu la naqari su ko defee bu boobaa du doon yow direct ak ki nga ko joxoon te gis nañ ne loolu suuxal nañu bari jël alal jox ko nit te dantifié wuñ ko jaaroo ko fa nga ko war a jaar yàkkamti ba jël ay millions def ci ñu xëy triyaane la waaye boo demee polis ñu arrêté ko mu joxe di d'identité nga signal ko contrat weer wu dee nga fay ko su ko defee dana mën a taxaw ci jur gi di ko sàmm su ko defee ay garde yëpp nga wut ko yu lay gardeel sa alal joojee ànd ak sàmm ba wut équipe boo xam ne li jëm ci wàllu alimentaire bi ci wàllu xont bi ñoom it ñoom nga ciy embauché ñoom it ay këyit lay am yoo xam ne si la nga warloog ñoom dañ leen koy fay ba buñ yàqee sa alal ñu mën leen a topp kon nag yooyu boo ko leen jëlee ñu solal la ko nag wu ne nga jënde ko ay cent nangam mille wala cent cinquante mille ñu jël ko sol nag yi ba mu am am at nag yi danañ nekk ay nag yar yu mag su ko defee lu mel ne événement bu jotee soo jaayee nag yi da nga jotaat sa njëg ba jot sa bénéfice ak buuñaa gannaaw boo génnee say fare ca dund ba ak sàmm ba ak garde ya ak wàllu ndox ma ak la ca aju parce que liggéey dañ koy jox li nga xam ne mooy gëddaam liggéeyantu nag moo bon muy gis loo xam ne si ay million ko def nga yor say junni gis lu milliard def nga yor say junni ndax xaalis boobu day ànd ak xam-xam te xam-xam bi boo ko yorul mën ngaa embauché borom xam-xam nag yooyee bu événement jotee mën nga koo jaay jotaat njëgg épargner ko jëlaat lu toll ne langa jëndoon jëndaat ca nag yu ni toll remplacer ko loola nag yooyu képp ku ko jënd tey bu fekkante ne danga ne nag bi trois cent mille lay jar nga facturer leen trois cent cinq mille ne leen nag bu ngeen jëfandikoo ci nag yi ba noppi bu ngeen ma indilee der bi cinq mille bi tegu ci trois cent mille yi moom laa def garanti bi nga xam ne ku la indil der bi rek nga jox ko cinq mille am der yooyu boo ko dajalee ba mat dara danga mën a signer contrat ak fabrique yi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur muy commissariat yi diggante Vicenza ak Pisa ak yeneen dëkk yi nga xam ne ci yeneen réew yi lañ nekk tey liggéey der nga signé ak ñoom li nga xamante ne si mooy contrat bopp loo amata ci der rek dañ leen koy jaay kon beneen bénéfice ngoog bu dee nag yu jigéen yi nga xam ne dañuy jurit loolu ci bénéfice bi lool meew ma nga cay rattit day am personnel ñoo xam ne si ñoom ñoo koy jaay moo xam ñu koy jaay di ko def meew wala ñu koy jaay di ko def am soow loolu boo ko defee ci wàllu élevage jàpp naa ni immigration bi du metti te loolu personnel la koy def waaye xaalis a koy def waaye kenn nit rek du ko def su ko defee ci wàllu élevage gi képp kuy liggéey te yàqoo ko bu dajal boo dajalee dara dugal ko foofa moo gën ngay dem di jënd ay kër ak i pàkk ak di ñibbi chaque instant nga tàggoo dem ñibbi événement bu ne nga dem boole boo nekkee fii di satisfaire li nga xam ne mooy soxlay nit yi ñu lay wékk diggante dépasse baag ak ndimbal ya muy xaalis buy génn te du duggaat loolu nag kenn mënta am doole yuy continuer nga di ko liggéeyal moodu bu daanu lee daanu li nga dajale ci xaalis nga jël ko genn walla gi nga jënde ko ay sëriñ ci diggante ay téléphone ak ak yeneen yu mel ne ñoom ak ndimbal surprise yi nga xam ne nit da lay woo téléphone nga dimbali ko ci ak ngoro yi ak kër yi ñuy tabax ak oto yi ñuy jënd yooyu gis nañ ne ku tardé moo la tardé te ñi koy def ñëpp en général wanewu rek yàkkamtee wane na maay diw famille sàngam laa bokk am naa kër am naa oto am naa jabar am naa njaboot mooy mooy ñibbisee damay def trois mois ab oto nga di ko dawal quatre-vingt-dix jours assurance nga def ko miite permis bi gasoil bi paan bi nga dawal ko quatre-vingt-dix jours la nga liggéeyoon yëpp da ko xaaj ñetti xaaj benn xaaj ba day demaat ci oto ba ak njëg loolu nag ku ci sax ngir gis na lu ligsi la te jàpp nga ne nit ñi dañ la teg fi barab bu ëllëgee bis bu tolof ñëwee sag bu la mayoon dana sag ko nga tàggoog oto ba nit ñi la tegoon fenn kay toog ci seen kaw danañ la reetaan kon investir ci wàllu élevage ci diggante nag ak xar képp koo xam ne fi ngay liggéey jël nga say sa temps bañ a liggéey am at rek ne am naa nangam naa ci daal di dugg parce que yitit la laaj su ko defee boo jaxasoog borom xam-xam yi danañ la mën a teg ci yoon ndax tubaab yii am na fi ñu yor seen fabrique ñoo xam ne si patron yi xamuñu dara waaye ci biir emploi yi ñu yor dañ cee jëlaale ñoo xam ne ñooy seere seen entreprise te loola xam-xama ko man bu dee ci wàllu commerce fabrique bi ngay liggéey fii boo fi defee benn temps te bëgg taxawal commerce fii ci réew mi fa nga war a jaar da war a wut licence mën nga am liggéeyu diitaa di liggéey ba pare am sa licence pour commerce pour activité commerce bi nga bëgg a def moo xam nga ubbi ay magasin ak domaine commerce ba nga bëgg a def bu dee lu jëm ci wàllu alimentaire kooku dafa am kayitu boppam yoo xam ne si moom lañ lay activer ca licence ba su ko defee taxe ya nga ca war a fay nga fay ko soo liggéeyee ci diitaa mat juróomi at te yàqoo da nga am fond boo xam ne gannaaw ba nga wutee kayit yooyu soo bëggee commerce ci réew mi am centre commercial bu mag ci réew mi man cee employé ay nit fay ci say taxi kooku boo demee banque dana la mën a garantir su ko defee boo ubbee place ci centre ville yu mag yi lu mel ne dëkk yi nga xam ne ñooy capitale région yi par exemple mën nañoo jël benn dëkk bu ñu wax Milan bu dee ca France ngay jël dëkk bu ñuy wax Marseille et cetera dëkk yëpp boo ko wëree réew yëpp boo ko wëree am na dëkk yu toll noonu xam ne dëkki commercial lañ nga luye fa place bu mag boo xam ne dana mën a def lu bari su ko defee nga dem fu mel ne Sénégal ci wàllu alimentaire nga wut équipe boo xam ne si ñoom. ngay bokkal liggéey bi nga deen fay salaire su ko defee xaalis bi nga dajalee ci liggéey bi ak li nga leb banque nga xam ne da koy war a fay lu toll ci temps bi nga xam ne moom lañ la wax muy juróomi at wala juróom-benni at xaalis boobee boo ko yóbboo Sénégal mën nga fa ubbi place boo xam ne da nga cay transformer li nga bëgg indi par exemple tey boo demoon na tey damay jënd café Touba war koo indi ci réewum Italie yi wala fa nga nekk gannaaw ba nga ci wutee kayit yi nga xam ne moo lay permettre pour nga war ko faa indi su ko defee entreprise ba ngay ubbi ca Sénégal nga xam ne café googu ñoom ñoo koy fabriqué da ngay am ay sachet yoo xam ne fii def ay cent grammes ay deux cent cinquante grammes yoo xam ne si lenn lu ci ne te ko soxla dana ko mën a jënd sachet yooyu day am tampon day am numéro de téléphone day am it dañ ciy bind it doosaasu café gi ak yi yi ànd ak café gi ci wàllu jara su ko defee foofa day am équipe bu fa nekk boo xam ne da leen di fay ñoom loolu rek kay seen métier ñi ciy liggéey mu nekk stockage bu mag boo xam ne ci carton nga koy def carton yi day am adresse fa jëm ak la ne biir ak la ca nekk ci ay sase ko defee nga teg ko ci bato bi indi ko fayal ko duwaañ présenté kayit yi nga amee kayiti njaay nga jël bagage yi yóbbu ko ca magasin bi bi nga xam ne luye nga ko fii ci Europe walla foo mën a nekk nga xam ne ko soxlaati café ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi ak ñeneen ñi ko soxla nga mën leen koo jaay en détail su ko defee lu mel ne wàllu bisaab moom i tamit noonu lu mel ne wàllu gerte noonu lu mel ne wàllu ñebbe noonu ak lépp loo xam ne luy ñor la tey ñoree ca sam réew nga mën a dem taxawal fa projet boo xam ne da nga koy financer su ko defee loola boo ca noppee nga transformé waat ko def ko ci ay jumtukaay yoo xam ne boo ko defee ci kees dana mën a jaar ci bato bi dikk nga dugal ko ci place bi nga xam ne lépp loo xam ne nit ki da ko daan jëfandikoo ci Afrique muy Sénégal su ko soxlaatee rek day dem ca magasin ma wutal ko adresse ak rii bi mu nekk wala wiya wala kaaje bi mu nekk ci langue yi ma mën a wax nga xam ne day am publicité su ko defee ak i embossement yoo xam ne ñi ciy liggéey fii ak ña koy liggéey ci senegal ay équipe lay doon yooyu kenn du bokk ak sa moroom yaakaar naa procès boobu nga taxawal ko pour liggéey ci moo gën a jàpp di ngay jënd ay otoog tabax ay kër ñibbi di def trois mois ak ki quatre mois jënd oto wutal ko bitse ci dépendance yeeg carburant beeg autoroute yi ngay fay ak ak it ci la nekk ak dépassu kër ga nga yor ak takkum jabar mu bari ñaari jabar ñetti jabar fase takkaat ak edd yi nga xam ne surprise lay doon ci ñii ñëw di ko sàkku ci yow loolu kenn mënu ko wutal bit waaye projet bi moom boo ca nekkee da nga ca mën a employé te danga nga ci mën a gañe loo xam ne si mën ngaa dem ba nekk milliardaire te nationalité yi nekk ci addina bi yëpp it noonu yi lañuy def marocain yi noonu lañuy def ba ci yenn pays Afrique de l'Ouest gi ñoom i tamit ñi ci baree bëri boo demee projet yooyu ñu ngi ko taxawal tubaab bi dana la respecté ndax xam na ne yow mii liggéeykat nga waaye gaaw dugg ci public weer woo fa gañee du fa fekkanteeg moroom ja balaa ñëw fekk nga am bor yu dul jeex luyee fi sa kër koo xam ne da nga fee indi sa jabar yow képp nga nekk fa di ko fay par weer lépp oto di ko fay dépassé ca senegaal ak événement yi ca Sénégal diggante tëbaski korek màggal ak gàmmo loolu moom jamono bu doole ji jeexee wala liggéey bi arrêté jafe-jafe rek ngay tàmbali di te loo ci dajale woon loola lépp danga ko ñàkkat alal ji duutoo ko am oto ya nga ca doon war da nga ko ñàkkat jabar ya nga ca takkoon it da nga ko ñàkkat su ko defee bu néew doole ñëwee nag fekkee sa dund gépp gaspillé nga ko ci pasar pasare li nga yor ngir yàkkamti ak bëgg a wane yaay kan loolu gis nañ ne moo téye immigration bi ba boobaak léegi kenn ku mën a busi amul ndax li ñuy liggéey lépp sero la weesu wuñ ci lu dul at ma jot nga bëgg a dem Sénégal wut événement booy dem te danga am six mois yooyu da nga koy waajal ci ay sëriñ promotion téléphone boo dégg dem jëndi boole ko bâtiment ba ngay yëkkati ca Sénégal loola lépp ak ña dëkk ca biir nga di leen dundal te koo ciy dundalit ay farem yëpp yow la koy wékk bu amee seen soxla seen soxlay boppit yow la ñuy woo te koo ko xas fajal mu fàtte la su ko soxlawaatee fàttali la ko la gërëm deesu la yërëm ndax yaa ko bëgge noonu ndax bëgg aw tur loolu nag kenn mënu koo lëggeel xaalis ba dale ci étape bu njëkk ba ba ci étape bu mujj bii kenn du ci réussir te koo ci wax mu ne nu may def ba toog Sénégal te jiyee moo réalisé noo tooge Sénégal ndax ku ñëw da ngay bëgg ne ca kanam xamuñu booloo xamuñu àndandoo gëdd gi ñu war a jox liggéey bi ñuy liggéey duñ ko ko jox moo xam kay commerce la moo xam kii def opéra yi la kii liggéey ci fabrique yi loolu nag gis nañ ne yàq na lu bare bare bare bare bare bare bare ci Sénégal yi nga xamante ni si ñëw fi jiitu ak ñi leen fi fekk ndax ñi leen fi fekk bu ñu dikkee boobu rek la ñuy jël ku ci daanu nag da ngay taxaw yaa gaynde daal yéenay bokk dund ndax gaynde moom ñëpp xam nañ ne ci doole lay dundee ak i xelu bu doole ja jeexee duutu mën a xelu fi barab lay toog na wopp duutu mën a def dara ba xëy wow koŋ loolu nag mooy dunduk moodu moodu kon daal yàkkamte moom na ngeen xam ne ku dee moo la rey ku tardé moo la tardé la moodu boo fi jëloon mën a la quatre-vingt-sept laa fi ñëwoon nga natt quatre vingt ba mu agsi ci deux mille vingt-quatre bi mu nekk daanaka presque quarante ans boo ko waxoon ne ko ba nga dalee tukki ba tey ñaataa jar ci sa loxo mënu ko lim ndax bari waay waaye boo ne loo ci réyalisé du la ko wan bu la joxeñee daal kër la gum tabax jënd otom def ca xëcc télévision bu mag def ca at mu jot mu ñibbi dagg bi jënd ay serite di dagg ordonnance yi di fay facture yi yi te loolee lépp bu demee ba mënatut a dem wéra di dab ko wala néew doole loola lépp da koy jëlaat jaay sag bu mu ko joxoon da koy saggi ndax di yor oto bu yàgg ñu ne diw di jënd yoratul oto lu ñuy xalaat da koo jaay te fa yow a àgg du man àggu fa da nga fi barab dégg ñu sosal la fa sos woo xam ne da ko bëgg a dindi te duutoo am personnalité bi dindi ko ndax kenn duutu la nawloo ndax gis nañ ne yorotoo dara boo waxoon dëgg sax ñu ne la day fen tey yi loolu biñ demee ba ñi nga xam ne yàgg nañ fi te biñ fiy ñëw ñu doon mag di dem ba mag dab leen fi ak wéradi tey ñi ngi dund jaxanama joo xam ne si ci biir Sénégal ñàkk réalisé googu moo ko waral te ñàkk réalisé googu yàkkamti képp a ko waral yàkkamti loo dugg génn ci gaaw songaat leneen defe ne loola ëpp xaalis te doo ci ànd ak xel doo ci ànd ak xam-xam te looy defit doo ca tàggoo looy duggit bala ngaay def dara da nga ko siiwal ba ñëpp yëg ko ngir bëgg caa am victoire bëgg caa am ndam bëgg nit ñi respecté la noonee nga koy siiwalee nag ku la ca respecté bés boo daanoo mu tàmmul la reetaan ak bi yàq sab der ci foo xam ne si mënoo faa jote ba di ko weddi te ki la xas bañ moom loo ko mën a wax ci safaan it da koy gëm donte du dëgg te yow doo ko mën a dindi kon daal lii bokk na ci li nga xam ne tey mooy numéro bi nga xam ne andil nañ leen ko ci yàkkamte gi Sénégal a yàkkamti te jiitalu ci xam-xam ba tax na tuxu tuxoye yu bari yi di dëkk ci dëkk bi ba liggéey nga dëkkaat fee liggéey ci fabrique bi ba liggéey nga liggéeyaat ci bee commerce bi nga nekk ci doo ko wutal ay kayit la nga war caa def doo ko def doo fay ay place yi marché wala nga nekk ci ambila yu ñàkk fayda yi nga xam ne da gis ku ci nekk quarante ans yoo xam ne si la muy yor ca loxo ba daanaka boo ci dugaloon cent euros mu jeex tàkk nga bëgg cee yor ñaari kër muy yor sa kër gi ngay yor fii say fay say dépense ak kër ga ngay yor ca Sénégal ak bëgg di dagg bii di ci ñibbi ak bi bëgg di fa toog ay weer loolu moom xam ngeen ne wax dëgg yàlla yéenuwul maanaamam ci ñàkk xam-xam ci la bokk ak yàkkamti wane sa bopp kon bokk yi ñu ngi taxaw foofu di leen jox dig dajee ci beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jëla ngeen jëf